fële ca Tiwaawoon fukki xale yooyu ak benn euh, ñaanal leen masawu seen njaboot seen i wayjur ñaanal wayjur yi aussi yàlla defal leen njabootu bargeel euh, bi ñu lu weesoo ci loolu it rafetlu nañ taxawaay bi ci président Macky Sall am ginnaaw bi nga xamee ne moom ci boppam jóge na voyage jubal dem Tiwaawoon joxe na ay tegtal yu bees euh, ci ministère de la santé par rapport ak liggéey bi ak jumtukaay yi loolu mu nekk loo xam ne lu rafet la. Euh, te ñu koy rafetlu bu baax a baax leneen li mooy waxtaan nañ ci situation politique mi am ci réew mi d'abord ci suñu département euh, PPC rafetlu na euh, li nga xam ne tey moom la kilifa yi yi nga xam ne ñoo nànk Benno Bokk Yaakaar fii ci département bi am taxawaay pour ànd lu ci bëri nag ñun ñu fekke woon ko nekk ci ñi nga xam ne dox nañ wax pour que jàmm jooju ñëw ñu sant ci yàlla bu baax parce que ñun ñëpp ñoo bokk même même responsabilité ñoo defandoo suñu analyse parce que dañu génn ci ay élections locales suñu tasaaroo tax bay kon bu fekkee ne tey nekk nañu responsable te mat nañ li doon dañuy tirer ay conséquences ci li nga fa lañ jaar pour bi nag li ci njëkkoon moo doon gën a xol yi gën a waxtaan loolu it ma ciy gërëm di ci sant bu baax l'ensemble des responsables yi nga xam ne dugal nañ ci seen loxo pour que euh, jàmm jooju dellu si tey jàmm ji moom ñu ngi ñaan en tout cas wax naa sama waa parti kenn ku nekk ci ñun loo mënti def suba ngoon na nga fexe ba jàmm jooju mu gën a mu gën a sax leneen li waxtaane nañ ci affaire liste yi nga xam ne gis nañ presse bi génne na ko PPC di rafetlu aussi euh, li nga xam ne président Macky Sall euh, def na ko muy jël ma man mi di secrétaire généralu parti bi euh, teg ma ci presque place bi ma tegoon en 2017 parce que 2017 maa ngi woon ci fukk ak juróom-ñaareelu place waaye góor moo jiite woon liste bi. Euh, Bipa, ma nek ci place euh, mu place place bu honorable la ma PPC euh, di wax rek it daf ñu war di encourager chaque fois bu ñu nekké responsabilité ci fenn ñu li ñu denk nañ ko nañ ko nañ ci ba ñi nga lañ ko assemblée nationale lañ 2017 waaye wax fa dëgg yàlla jàpp nañ ne de am nañ taxawaay bi ñu waroon bi ñu doon xaar ci ñun gox bi di ko xaar ci ñun réew mi di ko xaar ci ñun suñu majorité di ko xaar ci ñun jëm nañ suñu kem kattan pour am taxawaay boobu. ah na loolu it bokk na ci li influer ci décision bi quand bien même PPC aussi euh, nekkatul partie bu ndaw euh, kon loolu dañ ci gërëm président bu baax a baax di ko ci di ko ci santat